dikkati naa ak lu mën a am waa axlu covid xam leen ni fàttewun leen turbine yéen a kaay naan kon déedéet ñoom kay fi mu ne na ndaaj ba ñëw toog janoog ñun ñu xamal leen ni ña nga xam ne dañ doon tuumaaloon ci sàcc suñu alal ci covid bii yéen a ngi daw waay jërta dàq ay sacc yu dul rëcc ngeen yéen a kaay bi dee média bi naan leen milliards yi nga xam ne sàcc nañ ko ci covid 19 bi suñuy milliards ñun askanu réewum Sénégal amu l'observateur naan kon tabaski yegsi na lujum seer na sobleeg motard ak saf-safal ya muy àndal seer na xar moom daanaka waa Ndakaaru moom jàpp ci yàlla te xam ne moom seen am xar dana metti wala ndax jaaykatu xar yi ci boppam ñoo ñemeetul jagat-jagatee seen i xar andi ndakaaru manifeste yaa fa jaar gaa yi tiit ba mar day taali tribune yéene kaay naan kon avec ça ay nit jël ay milliards yoo xam ne dañ ko waroon faja ay doomu aadama ne furaas ne tungaañ daal di lekk dara naru leen ci fekk day yomb moo tax yéene kaay bi nag xëy samp ay laaj nee na nag ña nga xam ne dañoo laaloon ci coowal coronavirus bi ndax nag fi mu fay seeni bor xaalis moom ñu mobiliser woon loo xam ne askan bi ci boppam ñooy boroom gaa yi taal seeni tele ñeneen ñi seeni rajo ñeneen ñi yor seeni micro di talal loxo nag naan lu am andil ngir ñu mën a fajee ko askan wi ngir ñu mën a dundalee ko askan wi ci jamonoy mbas moo xam ne mënta yomb ci kenn xaalis boobee ñu dajale ba mu mat junni milliard teg ko ci loxol ñenn ñi naan leen doxal leen sénégalais yi ba ñu yëg corona ñoo ñee jël ci seenu gafa ñii ñoo néeg néeg a dompat néew tribune yéene kaay mel ni ku naan ma déet kay sàcc ak kay sàcc ku tane ndax nag procureur ci boppam le woon na ni daa ñu dal ci kaw képp koo xam ne laalee nga ci xaalisu corona bii te procureur nag tegoon na ay tànk ak i jéego ngir topp leen lan moo soppeeku entre temps loolooy laaj wa waxtu woowu lii ko di jee mag naan maan maa gi daal fas nañu yéene waxati Abdou Karim Fafana ak Samba Ndiobène Ka fas nañu yéene janoog taskatu xibaar yi tribune yéene kaay mel ni ku naan kon du am njariñ ndax la ñu wax lépp bari na te kenn dégluwu ko l'info yéene kaay mel ni ku naan kon déet F24 kay moo fa libération turbine yéen a kaay naan kon F24 amal nañ lañ duppee dialogue du peuple di artu nag Sénégal ci loo xam ne mi ngi raam te ci ñag wi la jëm loo xam ne nag mën naa jural réew mi à tout moment coup d'état l'info yéen a kaay naan kon F24 amal na dialogue ba ma ngay sàkku si sénégalais yi ñu màggal 23 juin naan leen ñun nag suñu rendez-vous gi yéen ca mbedd ma fukki fan ak ñeent ci weeru suliet la ñu jaagar jaagar yi nag janoog président Macky Sall fas yéene jaagar jaagar yi libéré ña nga xam ne ay détenu politique lañ fas yéene jaagar jaagar yi ngir nag lépp xam ne ñu ngi koy toppee ay nit ci yoon te ñëpp nekk ay adversaire politique yoo xam ne ay wujju lan ñu fas yéene jànnoog président Macky Sall ci présidentielle bi ñu ne leen du fi amee loolee nag lañ bëgg mu daal di dakk ci réew mi fas nañ yéene jaagar jaagari marché ngir ñetteel bi mandat Sall ko amal ci réew mi ndax saa ko amalee moom mooy Sénégal day tàkk fa yàllaahu jaagar jaagari wan bitim réew naan leen suñu jëwri ni lañ leen doon wax ci force occulte te waroon xamal àdduna wërngal këpp naan Sénégal ay nervi ñoo fi nekk yore ay ngànnaay di faat askan wi ñu daal di jël ay alibi nag di waxi force occulte kasaw-kasaw F24 naan leen loolee la ñuy leeral àdduna wërgal këpp Dakar Times naan leen du yomb de ndax mbootaayu xeet yi moom ña ngay félicité réewum senegal naan leen good fine ci àq ak fu doomu adama yi nga xam ne na ngeen koy sàmmee baax na turbine yéen kaay mel ni ku naan kon kon baax na ndax F24 moom fa mu taxaw ci ne dina jaamaarloog président Macky Sall moom déggu fa Walf Quotidien naan kon Sénégal man ni la wi nga xam ni mooy lakk daay ba tey fayagul nekk doo attention le témoin yéen kaay naan kon Sénégal kay mi ngi diggante jàmm ak fitna Abdou Khadir Sanogo naan kon fi mu ne du yomb Morga sama économiste naan senegal li muy dund jamono jii tax na nag ci wàllu kooma maar day taali la nar a dund may sa baabu économiste naan kon croissance bi ci boppam moo nar a deltu ginnaaw maître waagaan fay naan kon li ñu nekkee du sax jàmm ndax nag jàmm ko gën diggante jàmm su tuut ak guerre la ñu nekk l'observateur naan waxtu woo xam ne ñeen ñaa ngi tiit di falañ falañi ñeneen ñi moom ñañ ca seenub dialogue turbine yéen a kaay mel ku naan ko déet f moom it lu mu métti métti ma ay dialogue di l'observateur naan kon waxtu woowee ña ànd nguur ak dialogue nguur ña ngay waxtaan seen biir waa opposition naan président Macky Sall fii moom ñetteel bi mandat doo ko fi bëggee ci mim réew te doo ko fi sampee société civile naan leen may leen conseil constitutionnel ñu wax ña ànd ak président Macky Sall naan leen ndëg na li pare na samp ca des waa parti démocratique sénégalais naan nañu attewaat coowal Karim Meïssa Wade li ñeneen ña fare ci opposition bi naan leen nan leen gracier mu yomb diggante Karim Meïssa Wade Khalifa Ababacar Sall nañ leen jéggal ngir ñu mën a bokk ci élection yi Benno Bokk Yaakaar naan leen ñëpp mën a bokk waaye Ousmane moom deesu ko jéggal réew mi ko dijee naan ña ngay xaar président Macky Sall ngir mu wax ñaar fukki fan juróom benn ci weeru juin Sall la ngeen bëgg mu wax ci ci ñetteel bi mandat day du ngeen ko dégg moom président Macky Sall nag ci résultat dialogue bii la nar a waxtaanee la nga xam ni nag mooy candidature am bi Sall dina leeral day dem ci élection wala du fa dem ci weeru août lu ci mënti am Khalifa Ababacar Sall Karim Meïssa Wade la leer ba leer mooy présidentielle yi daan ca bokk critique yéen kaay naan bugaan géy danee nga jagat jagateeti talaata talaata ji ma nga war dem te sigi coor nga xam ne daanaka yàqu na yexeet ak i fas fa yéene dem nag jéebaaneeti ma Macky Sall critique yéene kaay benn ku naan kon sikundik sikundik la Sall ngaari lam tooro buur géde tum politique la xarañ lool ci wàllu politique Sall bu signalé gauche jàppaleen ni ma nga jëm droite fi mu ne nag da ngeen naan kon sa candidature bii bàyyi ko mel ni ku koy forcé Sall ne tekk rek xam nga jinne lu mu màggat màggat dese ngela ju goo xam ne mënees naa jommal gu ne Sall fii la tolloog réewum Sénégal akub askanam yéena ngi Sall bul def beneen mandat day mooy toogaat ci nguur gi bien bon utaat prox ndollu gu leer goo xam ne bu mu fa jaaree dana jaar ci buntu bu mag bi te buy génn yéen a koy appuyer F24 ci tribune yéen a kaay mel ni ku naan koon ñun critique naan ko yéen maître Moussa Bokar Thiam ci ko l'enquête quotidien naan koon yéen taskatu xibaar yi nag ci seen édito démb bi yéen laay tontu naan leen ci junni ak juróom benn téeméer ci carte de presse yoo xam ne jébbale nañ ko ñetti téeméer rajo yaa ko am ñeent fukk ak juróomi ay quotidien ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróomi ay site d'information télévision en ligne wal fajri kese moo ci am ñaari taskatu xibaar yoo xam ne ñi leen làq jant bi ndax nag lañ tegal taskatu xibaar lañ jël teggi fee def seen yëfi bopp maître naan leen liberté d'expression wax nañ ko waaye nag bu mu jéggi frontière bu mu tax réew mi ñuy xiiroo ki ngaayoo naan leen ngir soo garder ordre public ba faaw yenn yi am ngir Sénégal mën na moom boppam xiiroo ngaayoo mën a des ci réew mi faw yoon di dóor mënuñoo bàyyi réew moo xam ne lu waay neex def lu waay neex wax bu mujjee ci guute ñu naan ña ko jiite woon ñoo sàggan wala ñoo seetaan xam nga réew muy tàkk ñenn ñi di wane tàkkam ña gis tàkk ya di gën a dem ci manifestation yi fitna gi gën a yokk loolu du njàmbaarte yee fitna la Walf Quotidien di ko tontu naan kon xam nga li am ba des mooy nennu salfaañe àq ak yelleef ak liberté nga xam ne may nañ ko tasum xibaar ngeen nekkee ci réewum senegal te day dakk waa Walf fas yéene jaagar jaagari ñoom marche ba jëm pale ngir naqar lu ñaawteef yi nga xam ne nguuru Sénégal ma ngi leen koy teg yor yor naan ak lu mën a am bu leen fàtte ni Serigne Saliou Gueye ñaar fan juróom ñeent ngi nii mi ngi ci kaso bi tribune bu leen fàtte ne it seen TV yéen lay liggéeyal grand plateau ngir waajal tabaski dooraat na ci seen TV ngeen waajal ni ndakaaru fan yi nu jëm taw yu njëkk dana fi am te ngeen xam ne it tabaski ñaari fan lay doon ci réewum senegal am na ñuy tabaski àllarba am ñuy tabaski alxamis ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm abonné leen ci suñu chaîne ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak bitim réew